jërë ngeen jëf mbokk yi internet yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo ñu ngi leen di eh, jaajëfal yéen ñu ñuy teewloo ci seen bii di naar ak ti dal leen ak jàmm mamay Mbaye ak kii di Amadou Ba candidat bu APR ñoom nag seen diggante am na ñor-ñor luñ ci war a leeral ñoom ñaar ñile seen diggante bi nag am na la nga xam ne nag war nañu ko leeral mu daal di jëm ci Prodac ndax nag ñoom ñoo seqoon mbir mu ni mel moom Touré nag daal di lu ni mel moom Mimi Touré nak jotone na ci yëkkati ay kàddu nak di leeral la nga xam nak moy product kan Prodac moom Mimi Touré Prodac nak la demee. wa product mom projet bu am coow la ndax xaalis ba dafa bëri. 69 milliards xaalis bu bare bare bare bare bare. product xaalis bu bare bare la di kàddu nga xam nak mom la Mimi Touré yëkkati waye nak ginnaaw ba nga xam ne bu bare bare mo nekk fofu lee ci product product nak ban ko laajee ki di mambay Mbaye mom nak ah ministre mambay Mbaye bañu ko laajee lamu wax moy mom daawul gérer ay koppar maanaam moom liggéey bi la doon gere kon bu ñuy wax waxu koppar nañu ko laaj ki nga xam ne moo doon ministre des finance ministre des finances bi nag ca njëlbeen mooy ki nga xam ne mooy premier ministre tey doon candidat wu Benno Bokk Yaakaar. nag mii mii ñu ngi dox ci erreur comme candidat Benno Bokk Yaakaar bii di Amadou Ba moo seere woon li jëm ci wàllum koppar moomile loolee nag. loxo mën nañ ne dem na gimiñ ndax loolee lu garaaw a garaaw la fii ci réewum Sénégal ba pare tourné waat nag di ñu laaj réew mi te loolu amuñu si benn leeral ba nga xam ne ni jóge na ci Amadou Ba wala Mame Mbaye lu dul li nga wax nii rek lañ ci mën a dégg te loolee nag moom mu nekk li nga xam ne lu garaaw a garaaw la. lii nag lu garaaw la def naa musta am Sénégal. ndax premier ministre bi mook ministre bi wax loolu ñoo bokk toog ca conseil des ministres bi nga xam ne président Macky Sall moo ko jiite. kon candidat Amadou Ba du man sax maa lay laaj sa ministre nee sa ministre bi nga xam ne yéenay toogandoo ci conseil des ministres nee na nga leeral 69 milliards yi. Amadou bu ñëwee leeralal ministre yi 69 milliards yi ba pare ñun ñi di sénégalais yi muy laaj réew mi na ñëw ñu nit daal di taxaw ak ñun jàkkaarloog ñun leeralal ñu 69 milliards yooyu naka la demee te it fan la dugg ndax nag mbir mi bari na coow lool te ñoom ñaar ñii la ñoo ko séq te lépp nag ci nguurug Macky Sall jii la amee te ñoom ñii la ñu ngi taxawaat di ñu laat ci réew mi rawatina kii di Amadou Ba ndax nag jamono jile fu ne ma ngi fay osé di fa dugg ne daa soxlawaat réew mi la te nag booba jamono nag mi ngi toog di loxoor yi nga xam ne nii kenn mënu laa wax yan loxoor la moom amadu Ba mi la ma nga ca te léeralu ko Sénégalais yi kon nag Amadou Ba dafa waroon a taxaw avant nag muy ci réew mii di Sénégal mu naa di leeral sénégalais yi loole nag moo gënoon rawatina nag sénégalais yi ndax coow li bari na lool waaye moom la mu wax aussi nopp mën na koo dégg parce que nee moom ay liggéey la la doon lijjanti ak i kayit waaye koppar ya ko yoroon mooy ministre des finance kon tey Euh, defe naa ne sénégalais yi dégg nañ luñ musut dégg ndax ñooñu ñëpp nag ma fàttali leen àllarba bu ne ñooy toggandoo conseil des ministres ka nga xam ne mooy jiite nag waxtaanoo mooy président Macky Sall. Mimi Touré kàddu yi mu yëkkati nag jëmale ko ci ñi nga xam ne nag ñooy nguuru jamono ji ak ñii laaj réew mi moom amadu Ba mi daal di ciy bokk ba tax na nag lu ni mel moom des ko war a leeral bala ñoo joxe ci num réew. ndax nag kii di Amadou Ba fu ne ma nga fay dugg te ñi ngi naan élection yi am labaj bu muy tuul te bu amee labaj bu ne Amadou Ba dina toogaat ci réew mi kon nag lii kenn waru koo bàyyi mu daal di sedd dañu ko war a leeral ba mu leer naññ ndax nag Sénégal yi kenn du yor seenub xaalis ba pare di leen laajaat seenum réew te leeraloo xaalis boobee naka la deme ndax nag coow li bari na lool lool ci li nga xam ne nag mooy wàllum Prodac ak la ci aju ndax nag réew mi bari na coow lu ci amoon li nga xam ne nag moom mii di Mame Mbaye bokkoon na si ña cooke woon coow loole tey jële nag mu ne daaj ji duggaat ci wàllum xaalis kon nag Mame Mbaye Niang mi la war naa génn leeral moom Amadou Ba mii timit daal di génn leeral donte nag buum mii nag moo war a gën a jàkkaarloog Sénégalais yi leeral leen ndax candidat la ci élection présidentielle yi nga xam ne nag moom lañ daal di dëgmal ba tax na moom président Ousmane Sonko nag yàggoon naa wax ne na Sénégalais yi xippi xool bu baax a baax ñi nga xam ne nii ñoo ñuy jiite ndax am na ñoo nga xam ne nag ay sàcc lañ. kàddu président Ousmane Sonko yooyee dafa dellusiwaat kon ñi ñuy jiite ñun ñu si bari rek ay sàcc